comme que Macky nag dafa am instinct animal am boo xam ne moom chaque jour la koy wane ñun suñu instinct animal ñu ngi ko teg tey taxaw di ko xool si toutefois bàyyiwul nit dof fii ak quelque temps instinct animal lu jeune Louga yëpp dana ko gis incha man nag ku ma xam-xam ne APR laa bokk laqatuuma man añ laa bëccëg laa sotti waaye je madre directement à son excellence le président Macky Sall ni ko bu mu def làq doom doo doom. te di leen xamal ni leen kat lépp lu moor am bokk na ko ak ay mbokkam. kon nag mbokkam yëpp am di jàmmam dëkkandoom yëpp kenn ku nekk ñu ngi ci gannaawam. que xam ni doomu jàmbur la téye grand frère u jàmbur la téye benn nit boo xam ni peut-être contribuer na ñun ci suñu avenir ci lu bari parce que daf ñuy conseiller daf ñuy appuyer daf ñuy accompagner ci lépp. du ñu nekk derrière ni dof parce que boo ànd ak Macky di nekk derrière ni dof du wóor nous allons l'accompagner nous serons à côté de ni dof. di nga ko buqat doo def dara maa ngi la. am naa ñaari jaase ak benn paak moo doonoon sama bay Macky jàppul nit dof dafa jàpp ay milliers de jeunes tëj ci kaso bi parce que moom beneen saa moo ñu doon waxal li ñuy wax mooy ki ko jàpp soit justice Sénégal xaw ma Macky Sall xaw ma kan la na ko bàyyi parce que ki mu jàpp day inspiré ay jeunes te am na fooy toll ak moom jeunes yooyu buñ fippoo ñëw sa kaw du sedd ci yow bala ñuy àgg foofu nañ ko bàyyi quoi nañ ko bàyyi mu dem doxe ay soxlaam parce que ki ñuy wax nii bu fekkoon du homme de valeur duñ taxaw fi di ko défendre parce que Louga lan dëkk Louga lu ñuy wax dëkku Baye Jili ngay dégg dëkku nit dof doo dégg mukk dëkku Abdoulaye Wade fi la dëkk Abdou Diouf fi la dëkk inspiré wuñu parce ñoom seen démarche peut-être nitu Louga gisuñu seen bopp quoi mais ñoom ci ki ñu woo mooy Baye Jili Mbaye mooy nit dof ay ñoom Serigne Sam ñooñu ñooy suñu référence nit dof instant bii nii nii Macky dafa jàpp ay milliers de jeunes tëj ci kaso bi parce que moom beneen saa moo ñu doon waxal moo doon gis suñuy mu gis ay privilège yu nekk nag ah bàyyi ko fa ñu màggandoog moom fii xam nañ ci dara man dëkk naa ak moom lu ëpp at biir këram biir Dakar gis ay privilège yu ko gars yi di dikk pour mu noppi kese noppi bu noppee ñu yóbbu ko kaaw mu nekk si jàmmam te bu ko neexoon def ko bu ko neexoon def ko dem tëdd Europe jël ay privilège am gérer fa même quoi ni bon Sénégal je m'en fiche mais nekk patriote moo ko dugal ci moo ko dugal ci mbaam mi nii mais kooku nag du doon du doon koo xam ne si waruñu ko taxaw parce que bi muy xeex pour bi muy xeex pour ñul la naxo gaa yi bàyyi mu dellu ci fameem nekk si jàmmam balaa muy jur leneen parce que loo gis waxtaan lay débuté boo waxtaanee waxtaan nga xam nag peut waxtaan bi fajul so fajul nga doog a jël beneen moyen mais yàlla mun àgg ci beneen moyen pour la moment dañuy exiger ñu bàyyi ko mu dellu ci fameem nekk si jàmmam. man la Coumba Gueye maay taawu papa yi nit dof fii la juddoo fii la yaroo fii la màgge kenn mësu koo xamal wax lu dul noonu kenn mësu koo xamal def noonu. kon nag moor ah nan koy ñaanal furi ndax li tax ñu koy ñaanal furi moo dafay nit koo xam ne nii day def social te kuy def social wata làqutu te moo day def loo xam ne nii ay ay mbokkam sax duñ ko yëg day dugg ci kër def fa loo xam ne nii ci ndimbal ci jàppande loo xam ne ay mbokkam sax duñ ko yëg te di leen xamal ni leen kat lépp lu moor am bokk na ko ak ay mbokkam kon nag mbokkam yëpp am di jàmmam dëkkandoom yëpp kenn ku nekk ñu ngi ci gannaawam di ko ñaanal mu génn ci jàmm di leen ñaanal yéen tamit kenn ku ci nekk la nga bëgg yaa xam yàlla na la ko yàlla defal. damay yaaroo ci keppaaru Cheikhna Abbas muy sama sëriñ ma daan ko jot li waxtu juróom di ko noddal yéen ko wax nit dof man dama ko tudd nit mi niteel ku dof nit mooy niteel nit ku dof mooy niteel kuy bëgg a dof kooku mooy nit bi ngeen wax nit dof kuy bëgg a dof moo leen niteel nit dof du war ragal sama bàyyi ne balaa coono jàpp ngay napp ragal wala ngay faj ko rep wala ngay bañ mbër walla ngay miim fajar wala ngay bañ wëliyu xam kuy bëgg am lu baax foo aw jaar ci yenn barab yi mënul ñàkk ci lu baax dong mu la jëm see baax ne tam la sew ba yéegi ci réy moo gën tëb réy nit ku yaru la loolu lañ ko xamal dafa am lu xew di ko buqat doo def dara maag yéen la am naa ñaari jaase ak benn paak ma doonoon sama bay dama ne dama ne ñoom am nañu ay bien lekk nañ suy alal xam nga dañoo sàcc dañ ne buur daan jongama ñaan sëriñ yalwaan jiwul wayaan waanay seen day waan waan waan ko ñoom dañoo daan sàcc suñu alal ñoo duñu sàcc dañ leen di daan man nag ku ma xam-xam ne APR laa bokk la xatuuma man añ laa bëccëg laa sotti waaye je m'adresse directement à son excellence le président Macky Sall ni ko bu mu def làq doom dóor doom penda ba fii la taxaw saaga ñun wala fi yëpp président làq ko Aliou saw Sow fii la taxaw nañ pour président après Macky Sall am troisième mandat noonu génnee ay jaasi te dara fekk ko ci. ñu bëri ñoo xamante ne si amee Suzanne Camara taxaw ni nanu ren di deqet Ousmane Sonko te dara fekk ko ci parce que ay militant militant wu APR lañu bi ki des nit dof bu fekkoonte nit ku violent la wala nit ku réew la wala nit ku bëgg la. kara bañ reporté son show of the year su booba san san senegal at mu ne ay bis moo jógee dans les 46 départements dans les 14 régions du Sénégal bu ko neexoon fi mu toog lay toog bés bouton ni taal leen dëkk bi mu takk waaye defu ko nit def li n'est pas violent du nit ku du nit ku rëy du nit ku fuy nit dof succès soppiwu ko bu show bi gën a bi bi gën a populaire su ci paree feere dem tëdd lal basangam xale yi fekk ko fa donc ñuy wax ni on exige la libération de notre ni Nit Doff c'est un ku baax la Nit Doff nit ku woyof la jullit la ay maamam ñoo dëkk ñoo moom ba dëkk yi wa duga diggante ngeen la dëkk ak jëleerlu ak mbawoor di nit ku baax di as gor nanu bàyyi doomu jàmbur léegi nag damay demander à ce président Macky Sall man sa njaboot laa bokk mais danga ma maa laal dañoo laal sama doom dañoo laal sama rak rakk ju am jom ni jot du àll finti du baadoola du du wéyu fi la dëkk xuloowul xeexul saagawul waaye nag olof Njaay day wax ni mbaam boo ko dóoree ba noppi na nga bàyyi taat way ngelaw ba am na loo xamante ni si boo ko xañee nit xolam nga ko xañ ñu def na pas du du chef of du loo xamante ni si daf koy def pour xaalis daf koy def pour ses fans bañ nga ko teree dafa met ci xol mu gisaat leneen loo xamante ne si xëy na naqay na ko noonu la ko mën la ko mën exprimer woo mu wàññeeku jéggalu as gor nag jullit buñ ko bu tooñee jàpp ni tooñ na yedd boppam as gor doom as gor jéggalu dañ ko war a jéggal ñun nag mënuñoo tënk lu ñu tënku ci kàddu sëñ Lamine sëñ Lamine Sall parce que mooy wasilaam nit def waxtu du ko raw kon nag bu defee loolu bu lamin Lamine génnee wax du nu wax lu weesu li sëñ Lamine wax du nu teggi waxi sëñ Lamine waaye nag ñi ngi wax ni ñu def daa am yaay mu nekk ci kër gi am baayam mu dëddu am ay mag nekk ci kër gi kon nag ñoom xajoowuñu loolu bu dee ñun ñu nekk terrain bi xam nañ ko mën nañ ko xam na ni koy defee mais nekkuñu ci côté violence nekkuñu ci bras de fer dañu ni nan ko bàyyi mu dem ñibbi këram. patriotisme boobu nekk ci nit dof ñu war a xam ni moo nekk ci lugaatuwaay yi lu leen lu ko réveillé nag yombul. may Louga toi lu ko yëngal yombul waaye boo ko yëngal na nga xam du mboqat du tapet nit dof dafa taxaw taxawaayu nit taxawaayu Louga toi depuis kenn xamul kañ la kon defe naa ni moo waral bi ñu ko téyee nga gis waa APR nga gis waa Bennoo mais surtout waa di di def mention spéciale waa patriote yi nekk Louga nga xam ni mooy section communale bi nga xam ne organisé lu mel ni pour jàppale nit dof foofu mën nañ fi concert am comme ni ko Aïda Louga waxee léegi kenn dégg ko te pourtant day nit dof bu ne waan waa Louga kaay leen ñu fekk ñu Louga doona war def concert man de dinaa def te yaakaar naa dinaa fay ñetti bi te jafe naa ne ñii toog fii ñëpp dinañ dem mais deful loolu comme ni ko waxee dañ koo yar nit dof du sàmba suuna sàmba suuna moom da koy cokk wokk mu xuri la kon nit dof nekk na ku dal nekk na koo xam ne ku yar la nekk na koo xam surtout ku bëgg Louga la caab wax na ko léegi munoo ngay def rab rab ak temps yi mu gën a méttee ku dem Dakar ni Dakar laa dëkk yow nga dem Dakar ni Louga laa dëkk comme man ni ma koy waxee man su ma demee Louga dan maa na kaw kaw bi ma leen waa macha allah kon dafa ne ni kooku patriotisme bi ñuy wax si moom nekk na ko avant ñu koy def lii di wax rek ni waa Louga li ma leen ci yokkalaat mooy Macky Sall pareegul ci sénégalais yi pareegul ci ñu mel ne di dof waaye gis nga yu yaafuus ak toppaate bi nu nekkee ñun ñu ci bari buñ ko continuer dana defaat leneen lu bokkul lii loolu mooy lan gat sa gat sa la Macky Sall bëgg gat sa gat sa nañ ci dem ak moom leneen li mooy nit dof mii nga xam ne téye na ko am na ko ko wax léegi de ñaanuñu ko pour mu bàyyi ko dañ ko na ko bàyyi mu gaaw parce que Lougatoire neexu la réveiller ay ay ay ay ay ay ay violence ñun violence ñëpp ko am ah instinct animal nit yëpp ko am comme que Macky nag dafa am instinct animal am boo xam ne moom chaque jour la koy wane ñun su instinct animal ñu ngi ko teg tey taxaw di ko xool si toutefois bàyyiwul nit dof fii ak quelque temps instinct animalu jeune Louga yëpp dana ko gis incha allah. ma ni tey ñi fi wax bëri nañ mais tey dafa am lu nga xam dañ ci war a taxaw seetlu am ci fu ñu war a taxaw mooy kan mooy nit doof ci loolu mu nekk point bu am solo nit doof nekk na ki nga xam ni fépp fu mas a dem taxawal na fa luga el ji squat el ji diwaan bi nga xam ne si rappeurs yu ci bëri dañu am complexe bu jógee seen région. di dëgg Dakar di naan Dakar la ñu dëkk ni dof bi mu génnee dafa ni man Louga laa dëkk je suis un fils de Louga. nit dof mooy ki nga xam ne ni bi mu gisee ay passeport bi mu gisee yoon bu yomb dafa fa bàyyi ànd ak li nga xam ni mooy le peuple sénégalais le peuple ànd ak représenté Louga dignement nit dof bi mu ñëwee fekk fi ay kilip yi nga xam ne ni si ci li ma wax lu am solo la maanaam dama bëgg a wax ban valeur kii nga xam ne si moom la ñu defaan moom la. rappeur bi nga gis ni koo am clip yaa ngi gis ni jigéen ñi summeeku yaa ngi gis ay xaalis ni dof loolu gis moo gis loolu mukk ci ay kilibam parce que dañ ko yar ki sañ Abbas la bokk papaam fii nekk fi kilifa yar boobu ñu mu koy génnee di ko kii di ñu représenté dignement loolu moo waral ñun ñu bàyyi ni doof nous serons à côté de Nitdoff duñu duñu nekk derrière Nitdoff parce que boo ànd ak Macky Sall di nekk derrière Nitdoff du wóor nous allons l'accompagner nous serons à côté de Nitdoff di lancer un appel au président de la république que mu xam ni doomu jàmbur la téye grand frère u la téye benn nit boo xam ni peut-être contribuer na ñun ci suñu avenir ci lu bari parce que daf ñuy conseiller daf ñuy appuyer daf ñuy accompagner ci lépp liggéey na noog moom ci ay euh, domaines yu bari et il a été toujours positif en plus tamit euh, pour parler un peu de mooy que euh, direction bi mu jël su ko neexoon mën na ko bañ a jël nguur gi bañ ko ñor. Sénégal bañ ko ñor mu focus ci live am malgré tout da génn parce que ci géew hip hop bi am na marqué woon na ci benn empreinte boo xam ne je peux dire que ni mu ngi ci doon réussir lu bari. donc su demee ba jël yenn devant yi pour se montrer euh, pour défendre sa population c'est une boo xam ni même ki àndut ak moom sax daf ko war a respecter parce que àddina toll na foo xam ne ku ci nekk sa bopp nga tal mais ki bàyyi euh, ay mbiram ngir xeexal ñëpp kooku dafa jar ñëpp ni ko gàcce ngaalaama donc tey suñu essayé ba fii. mu am ay gàllankoor yoo xam ni genre je peux que ni nit ku ñu nekk mënoo wees sa destin foo jaar nga jaar ci mais malgré tout tamit il faut tamit ñu xam que ni nit dof nekkul nit ku violent nit dof nekkul nit koo xam ni dafa bëri ay xët-xët wala dafa bëri ay problème da ngay nekk ak moom sax ci problème en retour da ngeen di ñëw ngeen waxtaan juboo moor kenn ku ne ci ngor njub nga ak bëgg lu baax nga ko xamee ci yaru sun rakk la mais mel na ni sunu mag tey ndax féete nañu côté bu ne sagale nañu côté bu ne waxuma sax koñ mais Louga ci boppam tey lii dafa waroon a fekk ñëpp génn mobiliser wu nekk ci gannaawam. président Macky Sall dafa taxawoon wax ne opposition bi dana leen réduire ba nga xamante ni si dootuñu dese ci dara nga xam ni Mor Talla Gueye tey jii di nit dof bokk na ci victime yi nga xamante ni si. bokk nañu ci ñi muy ndax ndaxte moom dafa ànd ci ñi koy opposé mu nekk victime boo xam ne tey jàpp nañ ko injustement comme ni ñu jàppee ay patriotes yu bëri injustement ñu taxaw tey fii ci seen buntu kër di ko naxarlu bu baax a baax di wax président Macky Sall li nga xamante ni si moom nga gis samedi bii passé fële ca Kër Massar ñu naan pacte de Kër Massar su la doyulee dara dootu la doyati. maa ngi tudd Adama Diagne Diop di rakk ci Nit Dof di mbokk ci Nit man ak moom ñoo bokk benn maam bokk fa ñu jóge te bu may wax si Nit Doff nag dama ci sawar bu baax a baax a baax ndax quoi qu'on puisse dire dafa nekk koo xam ne bëgg réewam moo ko jaral lu ne Nit Doff dafa nekkoon bitim réew di liggéey ak ay moromam di am taraangaam di dund di tedd di teral ay nit su fa bàyyee loolu lépp ñëw fii tey di xeexal réewam ba natt fekk ko si tey ñëpp ñoo war a jug taxaw xeexal ko li nga gii dëkk kër jékki ko fi parce que Nit Doff ku ko xam xam ko ci yar xam ko ci teggin xam ko ci baax xam ko ci bëgg lu baax li ko dal nag nattu lañ koy jàppee ñun ñëpp de waaye man de la ma ko jàppee bëgg sa réew la du ma ne nattu la bëgg sa réew laa ko jàppee te tey jii bu daloon sama kawit damaa xam ne taxawaay boobu la ci am tey képp kuy Louga 3 muy sanc ba muy sanc ba sud muy sanc ba nord muy Alciri montagne ñun ñëpp ñoo ngi si ginnaawam di ko wax ni ñun say rak ñun say doom ñun say mag ak say mbokk ak say am di jàmm ñoo ngi sa ginnaaw di la soutenir bu baax a baax a baax te xeex bi du réussi te duñ ci dellu ginnaaw ñu def la ñu gëm ñu def la ñu àndal te li muy def ñun am nañ sa moom à cent pour cent vive Nitdoff firi Nitdoff ku ñu ràññee la ci combat social bi au niveau social ci combat bi su le plan politique loolu tax lu mel ni su ko dalee ñëpp war a jóg ñu xam ne que tout Louga est derrière donc le camarade le frère donc Mor Talla Gueye di nit nit dof te loolu ñëpp gis nañ ko lu ñuy exiger c'est sa libération vu son passé xam nañ ne que c'est un homme qui est véridique un homme qui est engagé mais un homme qui ne verse pas dans la violence su amee ba ñu am lu ñu ko ci bëgg a jàppee te am nañu lox lu gën a garaaw loolu fii biir Sénégal te kenn waxu leen dara dara fekku leen ci am ñi xam ne porte nañ ci sa plainte te kenn jëliwu leen te moo tax tey euh, rassemblement bii euh, département bi yëpp teew fi pour demander à ce que ñu ko ndax mun a fekki sa famille mun a mener son combat libéral mun a mener son chemin sur le plan social et sur le plan politique ndax ñëpp ñu xam ne combat buy mener c'est pas son combat c'est le combat parce que fu mu nekk nii sénégalais yëpp dañ leen a noot Sénégal dañoo noot te dañoo war a xeex pour nooteel boobu jeex ñii di xeex pour nature boobu jeex ñoom la ñuy teg loxo tey te nii dof kii la bokk ci ak les otages politiques ñuy wax te donc du ma guddal parce que ñëpp bëgg nañoo wax ñëpp am nañu luñ ci war a wax ci situation bi mais li ñuy laaj que ñëpp ñu sudewu ñëpp ñu ànd pour demander et exiger même je dirais sa libération